kenn newul élection du am doomu Sénégal a ngi waxtaan seen biir loolu dafa warul jar ñu ñuy ngawti ngawte ci àdduna bi lu ne jàppal bàyyil Sénégal jàppal bàyyi mel nu àdduna buy tukki président de la république nee na duma candidat wutatuma mandat le 2 avril ma jeexal sama liggéey damay dem sama yoon ah loolu loolu war na tax coow am ci réew mi loolu war na tax coow am ci réew mi date bi président moo koy déterminer parce que décret mooy fixer dat de élections yomboon na ma lool ma toog ne date bi nangam la te su boobaa ku mu neex ku mu naqari foofa ngay dem parce loolu loolu mooy li am waaye dama ne du ma fixer date te tooguma ak réew mi déglu waa réew mi déglu candidat yi ci cette diversité am na candidat yu ñu jàllale am na candidat yu ñu téye am na ay parti politique am na candidat yu ñu éliminé am na ñu d'accordul ci li xew am na ñu ci d'accord kon kay li ñu war mooy toog waxtaan suñu biir jiital réew mi jiital intérêt réew mi président bu nekk candidat newul damay toog bëgguma sax fekkee élection fekkee dëgg la ñuy wax

loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue ku ko bëggul loolu lay def mooy waxtaan ak dialogue suñu dialogue ba pare nag jotaay bi li muy rëy rëy amul dogal bi loolu tam dañ ko war a xam waaye dinañ ne président suñu gis-gis jàpp nañ ne lii mooy li gën ñeneen ne ñun lii la ñu jàpp ne mooy li gën su ko defee nag moom mu xool su taataane ba pare nag jël dogal bi muy jël su ko defee ñëpp jubluwaat ci liggéey dem ci élection yi ci jàmm ak salaam loolu mooy li jig Sénégal loolu mooy li jàmmu te wax ko waxaat ko junj naa ko junj nag doy na borom xel nañu dox jàmm bëggal réew mi jàmm loolu mooy njëriñu réew mi mooy njëriñu ëllëgu Sénégal kon yaakaar naa ne fii jàmm rek mo fi war a mën a génn ak waxtaan bu fekkee tey pare nañu ëllëg am ngeen journée lëmm su laajee sax ñu yokk ko ngeen yokk ko ñëpp rek wax ñu déglu ñëpp déglu seeni argument su paree ñu taataan jël synthèse yi jébbal ko président la république mu doog a mën a jël décret bi fixe date bi ne bés nangam la li ci des nag lañuy ñuy def après le deux man dinaa saisir conseil constitutionnel xamal ko sama xalaat wax ko it mu wax ci loolu ndax si njëlbeen ga ñoom ñooy mujj kàddu googu waaye assises yi am nañ ci wàll mën nañ ci waxtaan ndax yéenay réew mi te réew mi moo nekk ci kaw constitution moo nekk ci kaw élection moo nekk ci kaw lépp ndax réew mi d'abord jàmmam moo moo tax ñun ñëpp ñu nekk fi te mooy njëriñu askan wi kon lii moo doon kaddu ubbi gi ma bëggoon Naby Vision di sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàllu ak ñëpp jërë ngeen jëf lu ñu mësul gis ci Sénégal dañ ko gis ay nit solo ba jekk dem fekk ji le président Macky Sall pour trahir ce peuple wax ji mooy képp ku dem ci dialogue bi am tey fële ci Sikat tu as trahi le peuple sénégalais teg ci nag ñu ne mercredi dañuy yóbbu fële ci assemblée nationale ay projet de loi d'amnistie pour lan pour bépp bu fi tooxi doona bi nguur gi defoon dañ ko effacer gis nga ñi fa dem tey

nañu xam ne dëkk bi ñun ñooy boroom du le groupe cristol de personnes boobu ñooy toog war a décider ñun suñu avenir lan lay doon pourquoi ñun ñu rey suñuy rak ñun ñu rey suñuy doom ñu xëy ñu ne loolu yëpp jeex na kenn du ci waxati dara jël suñu mille milliards yóbbu ñu ne loolu kenn du ci waxati dara loolu moo war a jeex Sénégal jeunesse bi na ñu xam ne Sénégal pour mu jag ñoom ñoo war a jug defar seen réew ils ont trahi le peuple. dafa mosul baax te du baax. dajale gaa yëpp jam ñaaw ji leen décret moom kenn rek moo ko mën a jël ci Sénégal ñëpp xam nañ ne dix huit millions sénégalais yow de yaa ci mën a jël décret nee na moom rek moo mën a jël décret bi war a mën tax élection yi am te nu ko neex la koy defee te suñ ko defee ku bëgg ak ku bañ mënoo ci dara léegi léegi ñu ñu woo foofu ñuy dialogue lan la ñuy waxtaanee ñoom après <laughs> kii du nit. asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk waa Sénégal asalaamaaleykum adduna maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax mbokk yi dellu si pour def benn vidéo bu bu gàtt rek. Eh, ginnaaw li nekk di xew actuellement Sénégal mbokk yi bu fekkente ne da ngeen di yaakaar ni Macky Sall ak ñu mu àndal pare nañ pour tëggee élection yi nañ nax seen bopp mbokk yi Macky Sall parole pour dem ku déglu waxam rek nga xam ne kii mooy mbaam dëgg kii mérito sa jiite si quartier kii quartier si boppam sa la mérito jiite Macky Sall barke démb moo ngi doon jaay doole nit ñi di naan force restera à la loi démb mu dem ba nan force restera au dialog tay encore mu ñëw di jaay nit ñi bu amul fenn Macky Sall dafa rew ba jéggi dayo makisal nak Macky Sall nak il faut sénégalais wonat ko place am parce que wonon nañ ko ni ñun paré nañ pour jàmmal ak yow té mënoo dara ci ñun waaye nak Macky Sall à chaque fois bu démé ba gis nit ñi wër ko rek dafa yaakaar ni mom dafa am doolé té ñuko wër yépp ñoo ko di duggal ci limu nek ni bo déglu ay ay bar doli ñi wax nga déglu Eladjouf wax nga xamné ñi ñoo nek di duggal ci li nga xamné du ci génn motax ma bëggoon sénégalais encore na jëlaat sa responsabilité sénégalais ñu jëlaat sa responsabilité xamni Macky Sall ak ñu mu andal ay dum rek ñoo leen mën nyi jëlee réew mi ñi tiaxan jëlo leen ci réew mi ñi taxaway bu dëgër moom mo leen jëlé ci réew mi bo leen seen wax yi nga ne waxu tiaxan dëgg mo fa nek te ñi amuñu benn place pour waxal ñu ñi ñun soxlo ñu dara pour ñu waxal ñu dara wala ñu defal ñu dara Macky Sall luñ ko sante moy élection dëgg ne réewande bu mu nek di wax ci côté ñu jëm ci élection yi réewande bu jéggi dayoo la nekk di wax kon ñun sénégalais yi ñun ñoo war a xam ne Macky Sall il faut ñu téegal ndeyam bu baax a mu mun a réew mi ñu ragal ñu lu ñu wax de Macky Sall dañoo war a téegal mu bàyyi réew mi loolu mooy wax ji. gaa ñi ngi doon seetaan dialogue bi en direct bi may seetaan dialogue bi Maître El Hadji Diouf bi mu ñëwee dafa ne président Macky Sall après le 2 avril 2024 do dem fenn fii ngay toog article 36 moo la ko may ñëpp di tàcc président Macky Sall kontaan di reetaan. Amel Khalifa ñeu wax ni passation de pouvoir en 2027 la wara am bi ñepp gëna président Macky Sall mais ce qui ma ngi doon xaar kan wax le président Macky Sall dëgg bo droit au but mais encore une fois suñu mbokk wa la bi wa église bi bi nu parole ñoo wax Macky Sall ñetti si dañ ni institution yi dañ respecter waruñu craché si suñuy conseil constitutionnel boboy premier deug bi ñaarel be muniko processus bi warul taxaw dañ ko wara continuer indi na sax exemple ci coupe d'Afrique bi ñettel bi muniko tenir élection avant le 2 avril 2024 bi mu waxee loolu xool leen Macky Sall seetlu leen ko ci vidéo bi dafa mer gaay ñu vidéo bi. quelques positions de l'Église la première position c'est que nous devons respecter nos institutions. Aujourd'hui, si nous ne respectons pas le président de la République, nous ne pouvons pas appeler les autres au respect du président de la République. Si nous sommes les premiers à cracher sur le Conseil constitutionnel, ne soyons pas surpris que d'autres qui appartiennent à d'autres sphères crachent ou insultent nos institutions. Donc, le premier point, c'est le respect de nos institutions. Le deuxième point, la, poursuite du processus électoral nous pensons qu'il est important de poursuivre ce processus. Nous avons participé à la Coupe d'Afrique. Tout le monde a décrié la façon dont le Sénégal a été éliminé. On a voulu qu'on regarde la VAR. Pourtant, le Sénégal a été éliminé. Et la compétition s'est poursuivie. Il peut arriver des erreurs dans le processus, mais ces erreurs ne doivent pas remettre en cause ce qui a été déjà fait. C'est pourquoi nous demandons que nous demandons que le processus soit poursuivi. Troisième proposition, c'est la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Et c'est bien possible. C'est bien possible. Le processus a été engagé. Je pense que si on s'entend sur le principe, nous devons pouvoir nous donner des éléments pour y aller. Excellence, Monsieur le Président de la République, Merci d'avoir organisé ce cadre de concertation. En ce temps de carême, tous les catholiques de notre pays prient pour qu'il y ait la paix. La paix dans les cœurs, la paix dans les foyers, la paix au Sénégal. Et nous demandons l'union sacrée autour de notre nation. Parce qu'au-delà de nos partis politiques, au-delà des élections, il y a le Sénégal. Il faut préserver ce Sénégal-là. Je vous remercie. gis ngeen suñu mbokk chrétien bi bi muy wax Macky Sall kontaanul encore une fois suñu mbokk waa jàngu bi chrétien yi suñu mbokk catholique yi amati na ndam dëgg yàlla rek moo ko moom. joxe hélas. seen loi d'amnistie bii ngeen bëgg a forcer Sénégalais yi xam leen ni même boo leen ko voté après dañ koy xotti sànni ko sama lit bi moom moo leen réew mi ba lu leen neex def. neneen daal léegi président bu ñëw da ngay def la neex ba waaj a dem nga tëgg sa loi d'amnistie dem ñu fàtte su ma juumul ñetti loi d'amnistie moo fi mu saam Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade Macky Sall bëgg lii day gën a may fit yeneen président yi dañuy xam ni su ma ñëwee lu ma neex laay def après jeex na su may dem tëgg sama loi dem ñu fàtte lépp loolu jeex na léegi il faut tàppale yooyu jeex na doo leen jël ruum 12 ans yaa sa njaboot daf leen neex ngeen bëgg après ba leen dem ñu fàtte lépp la vie continue ngeen dem dund seen dund nice xale yi dee nag. seeni famille nag léegi ñoom waruñu xam lan moo tax ñu rey seen doom pourtant dafa génnoon pour wax lu ko nakari rek même bu dee daa yàq néewuñu fenn boo yàqee dañ war a rey loolu ñu koy xalaat sax gën a dof néewuñu fenn boo génnee yor xeer dañ la war a rey boo yoree drapeau la war a rey xaleen yii ñuy rey yoruñu pistolet yoruñu dara ñii drapeau lañ yor comme que nekkoon parcelle ñu visé ko dóor mu dee lan moo tax ko waruñu ko xam wala dañuy fàttali la vie continue policier boobu rey ko ñu bàyyi ko muy dox si mbedd bi nii te muy assassin ñuy tëj Auchan et cetera mën nañ leen jàpp tëj même boo yàppoon Auchan nit moo ëpp doole foofu ay matériel léegi nit ki dem toj dara ñu ray ko naa ay daa jéem moo toj moo saccagé xalaatu dof yooyu. loi boo leen fi voté après 2024 dañ koy xotti sànni ko bi li yëpp day leer du nul si zéro président bu ñëw def say tooxu diina bay dem nga setal sa bopp setal sa njaboot après bu dem la vie continue président bu ñëwaat nii lay defaat Sénégal compte avance ku ñëwaat nii lay defaat léegi bu dee gëmul yàlla xaalis yi xam ndax def si bokk sax bu dee xaalis yi si la bokk kon léegi ku ñëw mun na def la neex jël xaalis réew mi fooyee si def la neex bay dem jeex na effacé lépp après mu jeex loolu génn fi loi boo leen fi voté après 2024 dañ koy xotti sànni ci poubelle bi lépp day leer dégg naa mercredi nit saisir assemblée nationale pour affaire loi d'amnistie te sénégalais nee nañ bëgguñu amnistie président Sonko kenn attewu ko dañuy kër jàpp tëj ci prison bi soxlawul amnistie deful dara Bassirou Diomaye soxlawul amnistie famille de tenue politique yi génn nañ def conférence de presse nee nañ soxlawuñu amnistie prisonniers yi seen jëm bopp nee nañ soxlawuñu amnistie léegi ko leen di baal pardon bi ngeen wax ko leen di baal yéen dañu war a baal wala da ngeen bëgg a baal seen bopp yéen affaire caaxaan yooyu jeex na fi après 2024 loi d'amnistie boo leen fi tëgg dañ koy xotti ndaxte jaarul yoon te boo demee nii boo leen koy voté député yow askan bi duñu nangu ngeen di voté loi d'amnistie boo leen di voté militaire yi ngeen di naru dugalaat assemblée pour voté ko te su boobaa vote boobu baaxul après 2024 dañ koy xotti. ku fi def loo fa waroon def 12 ans yi di nga la layoo askan bi tappale yi moo war a jeex ci réew mi tant que tappale yi jeexul Sénégal du mu sa avancé li moo ñu rey depuis 1960 ba léegi président bu ñëw bu bay dem tëgg sa loi d'amnistie dem président bu ñëwaat def la même chose demaat loolu jeex na fi léegi loi d'amnistie woo wala nag la lépp dina leer incha allah